hallo asalaamu alekum ku dikk na bës te séddoo te dimbale ma ci jaay mi ku dikk na bës te séddoo te dimbale ma ci jaay mi ma dikk ñu ambiance te jaay ambiance te jaay pareeguma ci jaay mi de bas leen te séddoo ma dikk musóoru xaar leen ma xut beneen youtube channel bu ma fayndoon Aly bu xam nguy yu yàgg yu neex yooyu bés leen te séddoo ñu ngi ci jaay mi ba tey ku ñëw ne bés ñu ngi ci jaay mi ba ma ñëw musóoru sax musóor gu rafet te baax jërë ngeen jëf bës leen te séddoo ñu si jaami ba tey bës leen te séddoo keep tapping and sharing still selling clothes you know bës leen te séddoo jërë ngeen jëf bës leen te séddoo so xaaral ma ñëw si youtube channel bu ma fayndoon Alia Ron bu neex bopp nga xam ne neen woy yu yàgg te neex bës leen te séddoo si njaay mi laa ne ba tey de pareeguma si njaay mi de bés leen te séddoo de weeru waa ngi ñëw ci jaay laa ne ba tey bés leen te séddoo jërë ngeen jëf jërë jëf bés leen te séddoo de kii de xama kom do waa mati caam dogo la YouTube channel bi nu mu baaxee waaye yàgg te neex la bës leen te séddoo nga dikk def musóor oh, bës leen te séddoo sóor laa ko def bës leen te séddoo ma ñëw ñu ambiance jaay yére nit ñi soxot ñi may seetaan te dund métti te soxot te xañaan te bon soxna si soxoot yi may seetaan te duñ ma soppoot sopp naa leen allahu jërëgeen jëf yéen nit ñi may seetaan yëpp ñu baax ñi yëpp yal leen yàlla fay bës leen te séddoo may jaay di ambiance ah di leen pléxal wayu yàgg yu neex jërëgeen jëf lii laa ci xam nit fay def boppam nit waaye nit ko dund métit ci bon moos <laughs> barki salaatu faatiya suma xuloo si rek soo gars yi dafa am ne nii ngay def jërë ngeen jëf ci nit ñu baax ñu may seetaan yëpp ñu def seen bopp nit ta baax yëpp jërë ngeen ni man ko mel ni seen maam laa ci TikTok muy neex laa leen di defal ah. te su ngeen ñëwee du ngeen ma soppoot moos soxot te dundu métti te bon moos lii lum do li xaa dina jar na ko du ngeen jàpp ci yàlla te baaxam jërëjëf yéen ñu baax yëpp yaa ma jàppale tàngoor baaxut baaxut baaxut baaxut what the hell baaxut carton nga ma ceebu guddi mu nekk carton gi rek benn yoon waa ji jeex leen to say don't don't worry guys ah okay mën naa am xëcc si moom thank you guys bës leen to say don't ne laa teg bëgg a ñëw jaay ñu ambiance musóor waaye musóor bi nangu bës leen te séddoo danaa musóor thank you guys bës leen te séddoo ku soxotu te dundu métti te bon na bës te séddoo you know ku dundu te soxot nag na jàpp si yàlla ba tey te bës te séddoo tas sa xol dama dimbale ba tey te si yàlla. Oh my God, ah, I, think it's okay, but not even is this? Oh my God. Thank yaa ngi mën a xew xanaa nu tuddati sax suma nijaay boobu Ibrahima borom jabar ji tudd Ami ba tey du ma la dugal de suma nijaay bëggul ma di la dugal dugal toogil da jàpp si yàlla ba si séddoo rek ba sël da dimbali suma njaayam rek man da ndëmee ndëmee dikk naa borom dënd yi dikk naa borom dandi dikk na alhamdulilah wax na dëgg kay dikk naa xawoon borom dënd yi dikk nañ ak sama musóor gu bon gile moos ah mu ngo xanaa ma jàpp si yàlla bës leen ko séddoo rek bët yi fa mel ni bañ wuute barki yàlla sama bët yi fay huuje xaw ma xefilaati xaw ma xayam non thank you barki yàlla sama body pain wuute <laughs> xaw ma ndax xel yi la <laughs> xool leen ko rek guys <laughs> te nu ma koy gën a xoolee di gën a gis ne wuute seen leer bi dum ne barki salaatu faatiya suma noonu yooyu topp suma body si caméra même lan ñoo ma bëgg a topp subhanallah allahumma xarijum la taakum takkalmuna wutal laa illa gaay gis ngeen ko bi moo gën a taw gis na nu ma ko sampeere naa caméra bi la ndax xaw ma dëmm yee si topp subhanallah laa ilaa ilaa te subhanaka inni kuntu mina saalimina wutal gaay gis ngeen lu may wax tey xool leen rek it's nothing to do camera ok it's just bët bi moo gën a bi saa wu ma ko poosee What the hell? Oh my god. xool ko rek. la xaw bii lu mu féetoo leer gi la xaw. allo. thank you. <laughs> Thank you. Alors, charge ma téléphone charge. jërëjëf bu bu bu xaw ma bind leen xaw bës leen te seddoo may jaay yëre góor ak jigéen jënd leen bu julli si man ngir ngeen jaay pare ngeen di jëndi Sénégal ak jëndi Gambie di fay ay jeepeen di xañaanta soxo te butul bu ndaw bu ngeen ci teg jënd ci man kat du leen wàññi dara ah waaye nit ñi dund métti te bon dee moom du jàpp ah te boo waxee ni naan doo liggéey te booy liggéey duñ ko jënd soxor te dund métti te bon te su ma lonkee àddina si di leen kaa ngeen ne bu ma lonkee àddina si su may jaay di def yëpp ni di leen entertain di leen play musique du ngeen jënd ah seen gàmmu gi kenn mënu ko su ma leen di commuder di jaay ngeen di ma xas di ma romb bi wéy su lonkee nit ñi di leen ka ah, ngeen di ma def xaaral ma lonk Macky Sall sa wax ko li xam bi <laughs> nit ñi lu néewi xam bi ah maa ngi si Macky Sall yi gaaw leen bës te ñu suuli Macky Sall léegi ci jënd suma yére gaaw leen góor yaa nga ne mbaa ma lonk Macky Sall laaj ko si kii moom bu néew bi mu lañ ci ni kañagul lañ ci séeri lu yéen fansan du caaxaan ak comédie de gaaw leen séddoo vidéo bi te jënd yére yi te te séddoo vidéo bi te like ko mbaa ñu robbi Macky Sall léegi léegi léegi léegi léegi ma lonk ko ñu suuli ko ci tàkk sangile ok bës leen te séddoo ma noonu ñu def jàmm jaay si jàmm mbala ma lonk Macky Sall telling you this yaa two choice ba séddoo def sa bopp nit jënd yére yi mbala ma lonk Macky Sall suma bët yi fa ëppante saa bu ma ko poosee mu ëppante bëtam ndeyjoor mooy tuuti bëtam càmm mooy bu rëy xoolal bët yi rek ok mhm. jëngal xaw ma ndax caméra bi nu taxawee la bon I don't think so nii la ma poose di def saa baa si yére yi amee nga bëgg si yére ok ban nga bëgg xaaral woon leen bi bos leen te séddoo ma ñu wane yére góor sax loo bëgg mbeseñ wala piisi góor bës leen ah mbeseñ nga bëgg wala piisi góor yaama xam nga yaama bi yaama moom a ku ñëw na jënd de te bu mu fi wax waxi ma jënd yére wala nga des sa bopp nit tane si biti di seetaan allo allo Halo. Halo. Ah, kamu hukum doa aku. sama warga wi laa teg nag nga bugg yére góor yi waa léegi nga bugg wala piisi góor won la ko leen te seddoo guys jërë ngeen jëf bës leen te seetoo yow jëndoo mën ngay wax loo rek ku dem. yow billaay yow yaa ma yow yaa ma sonnal ma sonnal te maa ngi bëgg si yére yi sa ngoon ba léegi soo toppale si yére yi laa bëgg amoo ba yow kanaa jaayoo. <laughs> mais jaay kay waaye sonnalu ma la di yow yaa may sonnal. non jaayoo de ami jaayoo de. man nga ami man ami Diop laa tudd nga naan ma ami Amine Diop xoolal yére yére bu bula bi nga génne woon si suba bi ngay laaj son sonal naa la ba sonn dina dugal ma damaa bëgg si yére yi gannaaw am doo wolof te bu ma la bindee français ti ne comprends tu n'arrives pas comprendre quand je t'écris français tu ah, n'arrives même pas comprendre yow léegi bu voilà bu mbeseñ la wala bu pisi góor yére góor yi wan ma yére góor yi ma ma xool waa ok bu ok bu mbeseñ nga si bëgg wala ta ma se non ti si bu kii bi laa bëgg bu liis bi mooy abbaay yu liis yooyu noonu. hey man tey laa dee waa taxaw ma seex. génnoon nga ko fi de waaw bëgg ma génnee ko fii wan la ko si walis bi fii. waaw wan ma ko wan ma yu góor yi nga yor yëpp modèle yi nga yor ma xool doo ko tàllal ma xool man suma yëre yi ñoo a intéressé. <laughs> waa génnal man ma ko génnee nga mën koo gis. fekk yow wax damay damay dugg sa live nga yaakaar man dama laa nopp ak yooyu man dama am jabar sama jabar amul nijaay moo foog ne nga maa nopp. <laughs> waaw sa jëf sa nijaay na ko nekkoon xoolal mu may di nji jàmm <laughs> sonal nga ñu sama nijaay suma nijaay kat moo moom fi ne lu mu wax laay def bu leen ma ah. sol <laughs> fi mu ne taxawal ma wàcca ma génne yére yow nga wax ma bi nga bugg déedéet doo ma woon yére bi man mënu maa wàcc te woonoo ma yére yi doo ma woon yére yi bu mu bi nga génnoon si bëccëg su ma koy wane fi ne doo mën baax téléphone bi fay ndaw moo tax maa ngi koy gis bu baax maa ngi boo taalalee ma gis maa ngi lay gis bu baax yére yi même jigéen ñi nga génnoon sax dafa rafet si si si koor gi maa ngi lay gis bu baax waa léegi maa bëgg yow sa wàccee sama ko génnee nit ñi gisaale yow nga jël li nga bëgg nit ñi jël yeneen yi. déedéet oh, déedéet yow bu may wax doomu comprendre bu may bind doomu comprendre tàllal laa bëgg nga wax ma lu muy jar ma waxanteeg yow ñu toj suñu bopp jënax fii si dëkk bi fii. bu ma génnee dinaa xool ndax bu bind nga ne boobu nga bëgg ma xam. billaahi bu ma bindee ami doomu kom te aw ma tanga damay coupé live bi nii man dem sama yoon. gisoo ma damaa solo ba pare damay coupé sama live bi dem sama yoon tey la dimanche suba damay liggéey waa taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw bul coupé laay ah, bi waaye ami mi nag ami mi daa mel ni jaayul nag kii est-ce léegi yu yi ban façon nga ci bugg xam naa bii bii de yaakaar naa mooy bule bi nga génnoon tey suba gi bii dafa rafet bii rafet na xaaj bi de na ci piis bi du ko gis gis nga bi li muy jar ami bi rafet na trop sax bule bi ah. kii bule bi daf may jàpp sax bi li muy jar ami dafa yaatu ii ami bi rafet na bi li muy jar gudd ba ci suuf dafa ànd ak tubay waaw bi li muy jar danaa la ko defara juróom ñaar juróom benn fukk ak juróom mooy juróom benn fukk ak juróom juróom benn man loolu comprendre bu ko de amee xoolal bi tamit. bii mooy yu sexy yu gune góor yi. xoolal bi tamit te man yére yi daf ma manqué fii si Europe gi man aw ma ko man yére wolof yi dama ko bëgg di am des fois bu may dem ajjuma juma ak yooyu di ko sol quoi dafa rafet. mënoo ko wax si français si euro ñaata la si euro si euro ñaata la est-ce que est-ce que comprendre nga xaalisu euro euro bi. bi moo gën a yomb parce que bii xamut jam waaw ay bii bii si euro dana war a nekk ay juróom-ñetti fukki euro waaw lan mooy juróom-ñetti fukki euro cinquante euro wala axal la ñett ak juróom yow xamoo juróom-ñett yow tukkul fële waay déedéet ñett kay si xaalisu xaalisu xaalisu Sénégal bi ak xaalisu Europe bi du benn juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti junne juróom-ñett la juróom-ñett juróom-ñett rek la waa juróom-ñetti junne la wala man juróom-ñett juróom-ñett mooy lan juróom-ñetti junne ngay wax fukk juróom-ñett fukk juróom fukk juróom-ñett fukk juróom-ñett fukk xam nga luy fukk xam fukk juróom-ñetti fukk waaw xam naa luy fukk mais xam nga Sénégal dafa am xaalis junne déglu ma wax la junne ñaari junne ñetti junne ñeenti junne ñetti fukki euro laa la wax ah boo fitnaal waaye jëndoo génnal barki barki sëñ Babacar Si damay jënd ah génnal ci vidéo bi waaye ay waaye man kat moom mooy ñëw dimbale ma si si ñi ngi bind suuf xaaral ma xool si commentaire kii mu ne huit huit huit huit mille huit mille euros na huit euros fay fende moo gën a xam li may wax. barki Seydina Mohamed ami damay jënd yére yi ma intéressé kanaa xamoo ma man su ma yére yi intéressé toon dinaa ñëw taxaw fii nii xoolal di sama caméra bi si dikki dëkk bi. addina di ma ji waaw fi ne boo ma yónnee téeméeri euro danaa jox sa complet ak sa poste yëpp téeméeri euro. léegi yow foo nekk si dëkk bi yow yaa fan yaa ngi Allemagne. xoolal bi xoolal bii ni mu rafetee. yow yaa ngi fan yaa ngi Allemagne. foo nekk yaa Allemagne. waaw Allemagne laa ne. man France laa nekk yow xoola après dama lay yónnee sama code euh, kii bi postal bi après ma dugalal la ko nga envoyé ma ko direct sama ba sama kër. waaw. non yére jigéen ñi moom xoolal bàyyi su fekkee damay dem Sénégal dama koy jëndal madam damay jëndal madam foofu noonu yére jigéen ñi moom Sénégal laa koy uti man sama bopp laa bëggaloon may wane di yow moo taxaw may la nga nga boo boo dindee ko nit ñi seetaan gis waaye nga ne déedéet. waaw kon xaaral ma dindi xaaral ma dindi kon yow da nga yaakaar na jënd ma tama man damaa bëgg. déedéet bi ne xas naa ba jóg ngay jënd baay foos bi bii bu it bu góor la fi ne xas naa ba jóg ba di la woon yëre yi waaw. waaw waaw bii tamit dafa rafet bu bula bii nii dafa rafet. waaw bu bu ñor xomm la ba rafet ba bugg a dee. dafa ànd ak tubay. waaw dafa guddul. te bii fa ànd ak garambu bu koo xam ne ngaa bëgg a jënd yaa sa jabar ngeen niroole ko fa ànd ak garambu ba boppam waa teere fi teere ngay dee fi ne du ma ko génnee di ko lemmat ci ngelaw di ko lemmat bii rafet na bii rafet na am bii rafet na tàllal bi ma xool waaw mu ngi nii bi bi tricot mooy yi xem ci yi xem ci laa bëgg ak ci si suwaa bu bule bi nga njëkkoon a génne bu retax bi ci si bu retax bu retax bi suwaa bi bi nga njëkkoon a génne ak bii ñaar yi laa bëgg mais ñaari bula tamit dafay nuroo ñaari bula tamit dafay nuroo ami gaawal génnee xaalis bi ñoom ñaar nga bugg lii lan la mbesin bii lan la mbesin waaw waaw yëpp mbesin lay waaye mais non non nga ma njëkkoon wan bu suwaa bi bi nga bi nga lonk ne boobu nekkul mbesin waaw bii bii moom daf ma neex moom bii moom tàngaay bi moom boo sole solee moom da ngay am lu bari xam nga ñun Europe ñun amuñu yére yii ñun amuñu yére yii bii piis bi buggu tàngoor mbesin bi sax bi bi bokk. mais man daf ma neex waxtu woo ko sol baax na saa woo ko solee baax na yaa mu di nii rek. ah man de bii neex na ma bii moom neex na ma trop bii. waa mu ngi nii bii mooy bu gudd bi bii mooy bu gàtt bi bu xaw a gàtt bi mooy bële. non man bu gudd bi laa bëgg bu wàcc ba suuf bee buubu bëgguma bu gàtt man. ah yow nga ne ngaa bëgg mooy bu xaw a gàtt bi fii ne xas naa ko ba lee marti ba pare nga koy jënd bu ma foontoo du lii laa la doon wax waa ngaa rek xas naa ko ba lee marti ba pare nga koy jënd fi ne bàyyi foo tubee jaa ngi nii duuma sa morom. waaye amit bu gàttee ne man man bu guddi waaye bu gàtt bu fekkee dafa gàtt man dama njool man gàtt ma moo tax ma ne la man bu guddi bi moo may arrangé. ni ko taxawoon waxal la ni ko ñawee moo mel noonu. gi nga ñaar ah. am yoo gudd ba sëppe am yoo fii lay xem xaw a ah. yi ngay jël benn bii mooy bu gudd bi beneen bi mooy bu xaw a gàtt bi waaw baax na kon waaw ñaar yi ngay jël fi ne bàyyi force ban nga am si nga am si yëre yu bees yi pour jigéen pour sama madame ban nga am bu rafet si yëre jigéen yi am garamb bu bii fa ànd ak garamb bu ngeen niroole benn couleur bi benn tisi bi la ngaa bëgg waaye ñaw góor lañ ko ñaw sama jaman du sol ñaw góor nag. may na bu nga ma wan la garambu boobu jigéen bi mel ni waa garambu bu jigéen bi waaw ma xool garambu bu jigéen bi. bu ma ko maa ngi waaj. doo fi ne may leen mati di leen suba ba jant so. ami su ma jënd toon ami su ma jënd du ma ñëw di yoos te live bi di dama bëgg lii dama bëgg lee ñàkkee wu ma fayda noonu. waa baax na boo ko def danaa jël bi lonk ko wax ko xàddina si yëpp li ma def nii bës leen bës leen ngir yàlla rek te séddoo waa fi ne nii ñaar yi ngay jël waa fi ne maa lay génneel bu jigéen bi waa fi te du gis ngeen ko askan wi gis ngeen ko fi ne moom mooy génneeloo bu bi tey rek lay xam waaw waxal tey rek lay xam de waaye bul wax tey rek lay dee ndax sama yaay daf maa yaakaar daf maa ba sa kanam wax dëgg <laughs> tey rek mu may génnee robu jigéen bi. waaw ngay wax nag tey rek laay xam waaye bul wax tey rek laay dee ndax sama yaay fa ma fa bëgg a gis yàgg naa si réew mi te sama yaay gisagut ma fa ma bëgg a gis sama yaay nga ne neen toog di ma xaar. déedéet man waxuma ne ngay dee de rek laay dee bu maa nga fële tey rek laay dee waaye boo ko génnee sonn ba bëgg dee ah bii couleur bi ni mu rafetee kon bii xoolal da da may jox bii ak bula bi parce que ñaari bula tamit du ànd bii nii ak beneen bula bu bi uu bii rafet na. bii laa bëgg ak ak beneen bula bu suwaa bi. beneen bula bi beneen bula bi bu suwaa bi nga aj nee si koñ bi. bii. voilà bu guddi bi. waaw kay ñaar yooyu noonu laa bëgg nga paquetal ma. nga wax ma ñaata la. oh. bii bu tricoté. waaw waaw amili mais amili taay bu ndaw la. déedéet lii du ma loxo yaa ngi nii gudd ba sut suma loxo yi. ah ko non yaataay bi laa wax yaatuwaay bi nii laa wax nag yaatuwaay bi. Daawud de yow xanaa nga xel ni Macky Sall ak Adama Barrow sa biit bi xanaa fa rëy lii dana la jot lii mën nga ko ëpp moos lii lii man sax ma ko solee mu xem ma sitaay bi ni mu bindoo la duhut sitaay li warama bu ëpp ba mel ni Macky Sall muñ jaale ah defal sa bopp nit nii la sitaay bi mel dafay xem fii ah nga kaw kawe te dof torop xamoo dara ah taxawal ma wutal la beneen bu jigéen bi baa ngi nii waaw xoolal commentaire kii Ibrahima. la de ma de moo nekk fii bëgg si yére yi. baa ngi nii ma wan la bu jigéen man sama jabar dafa xaw a sew bii dafa ngand trop ami bii dafa ngand dafa rëy. man sama jabar dafa sew garambu sama jabar dafa sew taay fin la dafa sew si kaw njool lii dafa rëy. bu sewee te njool garamb bu noonu la fay rëy te wàcc te jot fay gën a rafet rek yow lii rafet na bu bii dafa rafet sax ami ah xoolal ñëw bi ni mu setee rafet lifin bee ci ne lamp be ci ne xaw ma naaj bi la waa gis moo tax mënoo koo gis seenoo gis naa ko waaw xar fii rafet ba bugg a dee gisoo su buggul ko kan ci kaw nii léegi ñett moom lu muy jar hee danaa la ko wàññi bu fi rangi waxaale nit ñi fañ waane di ko dégg yow xooma rek fi ne whatsapp bi ah léegi dinaa la woo waaw waaw dinaa la woo waaw ki ngay jël dinaa la ko dencal ñett yi ngay jël ñett lay jël waaw damay waaj a dem Sénégal moo tax ma ne damaa bëgg si yére yi xam nga xam nga man bu may waxee yow mais doo ma doo ma déglu ah déedéet naa la déglu yow kay ku baax nga suma ma nopp de suma nijaay du ko nangu te ñaari ame man yow mënoo amee ñaari. man ame ñëw ñëw maa yow di nobante damaa am jabar boo bëggee ma woon la sama jabar sama téléphone bii bu la doyut naa la amee la tudd du ma ñëw di nobante yow xaaral ma woon la fotoom fii nga xam ne man mii nag doxuma si caaxaan. gëm naa li nga wax waaye suma nijaay moo moo moo fiir rek moo nanguwul moo tax duma lay ñemee jël xam naa ne ndoboo ma suma nijaay ko nanguwul du caaxaan de. sa nijaay rek sa nijaay rek damay jàmm. sa nijaay damay nit ñi jàmm ndax du la sa nijaay du la bàyyi nga ne di live ba pare nag ni nit ñi duñu wax ak yow. ah fii live bi ku fi dugg ku fi dugg nit ñi nit dañuy wax ak yow. waaw sa nijaay nag kon ne wax dëgg la ba sa yoon néew ci waaw. jarul di ma wan sa jabar gëm naa la fi mu ne ñetti complet yaa ngi nii ma di la ko dencal. déet gëmuloo kay yoo kay gëmuloo ndax dama laa wax ne la sama jabar ami la tudd gëmoo ma. barki yàlla gëm naa la. mu ngi nii gis nga ko ami la tudd mu ngi nii. ah macha ami yëpp a rafet gis naa ko kay. looy réew yaa bon. ah naa la ko wax kat gëmmu na ba. waa fi naa la ko wax <laughs> la ko wax ngay jël bii. waa ñett ñett yooyu laa bëgg jël. léegi waa ok waa léegi bu bula bi nag bu bula bi ngay jëlal sa suma tooma nag. bu bu to tooma ban. waaw moom laa la ña jëluma ñaari góor yi de bu boobu nga téye noonu ak beneen bu bula bi nga wékk na ah, bu guddi bi voilà ñaar yooyu lay ak benn bu jigéen bi ñett yi. waaw kon bu jigéen bi doo jël beneen couleur boo xam ne fay xaw a niroog yow. doo ko jëlal bii bii fay xaw a niroog bii. waaw loolu de mu dëgg la moom. dem Sénégal rek toj fare def maabo. bo waaw boobu bii tam dafa rafet moom bii nga téye nii nii. piis yu xoyof yi fa xew sa ta rafet waaye ah mën ngaa jël mbesen bi waaye mbesen bi fa ànd ak xaftaan ma koo bëgg a denc ku xam nañ yoo xam ne jëkkër ak jabar fa ñuy bëgg a nuróole ci julli gi waaw ah, moom dëgg la moom ñi ma ci xam yu nuróole bëriwul fi ne su ma la ko joxee ba pare te yow te benn bi ngay jënd wëcc benn bi a ah, mën naa la koo jox de waaye man ngaa xam beneen boo xam ne beneen bu bula waa xaaral woon la bii xam naa yeneen ñaar yu bula taxawal ma woon la ko yoo xam ne gisoo bii te bii sax sitaayal bi nu mu bindoo fa rafet garaam bu la waaye aha sitaayal bi nu mu bindoo fañ ko xomb fii yëpp mu wàcc. yii est-ce que bii moo dàq abi bii nii nga téye nii. xa dàq te gisoo dënd bi fa xem ween yi liy feeñ sax du bëri. soorooro bu moo dàq bii laay jël bii laay jël. waaw ndax bële fa xaanda garaam bu moo tax fa xaanda xaftaan boo ko jëlee wëcc ba xaftaan ba. jëkkër ak bàyyi jël bii nii. nuróole duñu laay jël. bii sax moo koy gën a jot. fa rafet de bu ko solee ba mu sóoru nag. ah mbaa gudd na rek. mbaa gudd na ba ci suuf. fa gudd ba ci suuf moo ma sut sax fa ma sut sax day watatu. ana am na musóor am na musóor. waaw waaw yëpp a xam musóor. ah ko ma dencal la ko. waaw mbub mi ñoo doon kudde caméra bee koy def mais ni mbub mi fañ ñoo doon ko passé. déggal kii déggal déggal kii di commentaire nee na maa ngi dee man de xaw ma lu lay rey. bul faale nit ñi fay yabaate suma xolof yeeg yooyu la ñuy ree yow jëndal rek. man sa xolof ma neex sa ndax man saalum saalum laa man man wax yooyu sax naa la laay laay moom laay nekk di wax di waxee. jërëjëf ku baax nga bës leen te seetoo ngir yàlla moo gën ngeen ne foofu di kek kek. bii nice na gisoo kii nee na ma bii nice na am na ñu am na ñu am na ñuy encouragé wu de am na ñu lay encouragé pour nga góorgóorlu gën a liggéey ami waa jërëjëf bësal te séddoo waa léegi ok ñetti yooyu nga bugg léegi bu bula bii ak ak ak bii ak bu bula yow ami ah, nga lonk noonu ajil bi nga lonk noonu bi nga njëkkoon a jël waaw kay boobu dafa ma neex boobu dafa ànd ak tubay waaw voilà boobu fa gudd ba ci suuf bay watatu moo sax waaw waaw boo ñëwee na trop waaw merci beaucoup waay nice na moom. nice na tamit njëriñ yi aw ma ko France. waaw boobu noonu waaw. boobu noonu. waaw kon ma génnee ko bu ma ko lonkati ma génnee ko ma koy jënd ko. waaw génne ko ko léegi soo coupé live bi maa ngi la jël maa ngi la bindi message si sa kii bi ci sa di nga ma bind naa la message direct si sa compte. waaw. jërëjëf waay ba ci kanam. waaw mais mais Ami bu fekkee yaa ngi ko ku dégg français da ma koy paas ma waxtaan ak moom prix yi parce que man understand yu ma li may wax prix yi wax fa dëgg neex yàlla. déedéet defal ndànk man danaa ko seet ci xaalisi Angleterre ba pare seet ko ci xaalisi français ba pare taransu seet ko ci ci internet bi taransu leet ko ba pare yónnee la ko ci xaalisi français yow kay bul wax daal. waaw d'accord waaw baax na kon maa ngi lay xaar. jërëjëf waay. ok kanam. ba ci kanam jërëjëf. bës leen te séddoo ma ñëw won leen yére yi bës leen te séddoo yére yi wanteer la moor yombule wanteer bës leen te rek ma ñëw leen ñaar yim jël nii bës leen te séddoo rek jërëgéen jëf yal na leen yàlla fay yéen ñu baax yëpp di ma dimbale ku dund beti te soxot na di ma seetaan di ma xas te du jënd yal ko suma xàq dal bëtam ba pënd wala lex ba néewi ni Macky Sall mu sibul jërë ngeen jëf rek man fi ne waxuma Macky Sall dara may jaay rek ci jàmm bu ngeen jënd rek ci jàmm ngeen jëndul ma lonk Macky Sall maa ngi koy lonk si sa par wax ni jeex gaaw leen jënd ma lonk Macky Sall ku jëndul ma lonk Macky Sall léegi léegi léegi laa wax du comédie de axaleen bii rek ñu mu rafetee bëgguma koo jaay sax fa rafet aha leen lii rek borode bu rafet bi rek ànd ak malaan ak muso aha leen lii rek ku bugg rek dama waxal dégg ngeen ko ku bugg rek dama waxal ba ànd ak malaan ak muso mooy bile xel dégg ngeen ku bugg rek dama waxal ma ñëw génne yeneen yu góor yi léegi keneen ku bugg dama waxal li mu bugg lu mu doon bu leen taxaw boo di reeree ah da ngeen di ñàkk njëriñ di xeex xeexi rek di xeex xeexi rek te du ngeen jënd dara ana leen bu rafet bii te bii benn couleur rek la bi ma leen wan nii benn couleur rek la aha leen lii rek bës leen te seddoo jërë ngeen jëf aha leen lii rek dem ku bugg a te bugg suma whatsapp bi ngeen di dem si facebook ami xolof facebook suma whatsapp baan sa kaw bii mooy comme bi ma sol nii bës pour ku xam yaram ko mel ni man wala ku ma xëpp taxawal mu on la beneen bi mooy pour ku tuuti bii mooy pour ku tuuti bës leen te seddoo rek bii mooy ku tuuti loxo bi sax a gën a tuuti piis bi gën a dënd bi fii yaatuwaay bi ku wax ne suma yére yi baaxul ku ne fay fen fa xañaanta bon bës leen te séedoo ko rek yére yu baax a baax baax a jaay aha leen lii yére jot ta baax laay jaay bës leen te séedoo rek askan wee dundu métti ta bon rek waaye yére yi dara dara néew boo ko solee fii mooy ne ci kanam fii ne ci gannaaw askan wee dund métti te soxor rek waaye yére yi fañ baax te rafet ba bëgg a di rek ku ne lay xem bii naa comme bu ma sol nii mooy loxo yi nga xam fay teeg ak bi nga xam ne loxo yi fay hubbee yii yëpp rek la yu ànd ak musóor ndax ngeen di jëndam lan ma ñëw li ngeen di wax aha bii it jigéen fay sol lu jot te rafet aha leen di rek dinga jërë ngeen jëf bës leen te séddoo rek lii pour Massin Macky Sall yu xam yaram yi seen biir bi Macky Sall ak Adama Barrow bu ñëwul jënd nag ma lonk leen léegi ñu dee gi ngeen ko ba jot macha allah góor gu xam yaram bu mu na ñëw tricot bu rafet la ànd ak tubéyam gi nim setee ta rafet seen ngeen lii caméra bi la rek caméra bi fa soxor bon di ko def mais nii rëy passé ñu hay caméra bi lay xañaan te bon wala su ko noonu yee ci laxasu kañ ko passé ba niire yi baax waaye caméra bi koy def ni passé bi ko fa ñoroon bu ko xoolee fi te mu ngi nii fii fa tàlli ba bugga dee barki yàlla fa tàlli guys caméra bi xañaan bon rek ñuul bu rafet la mooy bii te bu rëy la xam na bu ndaw tamit ak bu rëy moo ne nii bu ndaw bee ne nii muy jëfin ba ak ca loxo bës leen te seetoo mooy pour góor gu tuuti góor gu def boppam nit te bëggut lekk mel ni Macky Sall ak Adama góor gu selam barki yàlla caméra bi ñoo ngëbee yére yi la ak ah, caméra waaye yére yi fay ba seen fay rafet ta buga dee seen maa bëri ay noon nag su may jaayee ka def yëfi nit rek ñu ca gannaaw di bax ba fii fet waaw mooy problème waaye yére yu baax a baax a baax dana fet lay jaay te yére yu fa diis te baax bas leen te seddoo rek gis ngeen ko seen nga jàmm dina ko fekk bas leen te seddoo jërë ngeen jëf guys li bokk solee bi si julli moos maanaam sol ko dem xew wala boo rafetlu ñu nag waaye bii ko tuuti dégg ko góor ñu selem ñi nag góor ñu sexy te selem góor yi Macky Sall nag moom ak Adama Barrow moom ñoo moom bii ñoo moom caaya boobu li ñuy mel ni Ami Diop muy suuli rek dañ bugg a lekk te tayal te du ñuy yëngati te xaw na lu defee seen jabar yi buñ ma a takk sax du ma nangu fa ñuy mel ni janji bu sibbutu rek bu guddee ñuy yëppas yëppasi sa lal ba ni janji buñ jaale rek anyway ñoo koy yëg ku mel noonu di no problème nga ñëw jënd sorry sorry sorry ku mel noonu daf duut nga ñëw jënd aha aha bii aha bii rek ñu seetee te rafet wooy lonk na si sama jaaro wooy aha bii rek ñu seetee te rafet bës leen te seddoo jërëgéen ah bii ren yem sedd te rafet coton la te rafet fa ni passé ni ko yëre yi xañaanta bon waaye yëre yi fa rafet de caméra bi xañaanta bon di ko def mel ni passé ni ko bii ko am yaram maasi Macky Sall yee baram mbala ko xaw a xel ni ñoom tuuti biit bi dana ci xaj Macky Sall yow Ousmane Sonko sa baay nga di di ko rey di dee su ngeen jëndut léegi tey moom lonk Macky Sall ni ba xam ngeen xaaral ba ñëw lonk ko sax aha bii bii pour maa si Macky Sall borom bii fa jot si nga loxo ñu seen nga loxo yi nu guddee ba suuf suma loxo seen nga loxo soo mooy bii soo moom tam saay bu mag la bës leen te seedoo jërë ngeen jëf couleur bu rafet grey kola bu rafet sorora bu rafet suñu jëm bës leen te seedoo jërë ngeen jëf seen nga couleur bu rafet sororo bu rafet ànd ak poos bii bënn waaye ñaari poos yaa ngi nii bënn ak tubéy bi faam soo bii si poos collection bi la waaye bii moom dafa xoyof piis bi fa xoyof moo gën a xoyof ñu collection bi seen piis bi dafa xoyof dafa siitulu sax simple te rafet bii mooy yi ma ñëwee woon Dakar seen nga fii xaru ren ku jënd ngay jënd ngay dimbale xaale waa Dakar yeeg waa Gambie yi ñëw xam nga ngeen a xañaanta kon ku def foofu di ma soboote yaa ngi soboote ñëwkat yene Gambie ak Sénégal ndax ñoo may ñëwal du a ñëwloo de waaye ngeen a dund métit te soxot fi ne ngeen di fàtte loolu yëpp foog ne man ngeen di yàq te yére yi fañ baax ba bëgg a dee yoo xam ne ñu xam la ñu xam la ñuy def ñoo may ñëwal bii baxaan ak sipp te ku ne lay xem koy xëccu nii ko ànd ak sipp ànd ak soo bu la nga jënd bi yaa sa jabar ngay nuróole moo gën a lëndëm waaye bii nu rafetee dafa am buum booy takk si dënd bi nii su ko defee sa sa bi feeñ mooy wala bu la neexee nga takkee ko si gannaaw sa séeb bi ci gannaaw feeñ soo bii moom seen faham living bi diis te baax te rafet seen mooy bii bii pour góor ñu selem ñi la faham ak tubéyam surtout góor yi UDP yi góor ñu selem ñi moom moom bii duur maa si Macky Sall lii de biit bi du ci xaj bii moom jigéen te lu xam-xam yaram ba xem ni manit dana ko jël Macky Sall la ñuy wéyam laaj Macky Sall la ñuy wéy du Macky Sall de ku ñuy wéy noonu laa bëgg a xam ma gaaw fay ko surtout bu niti Macky Sall yi la jënd soo xool leen bii rek nu mu rafetee ta sexy ah ku ne lay xel bës leen te séddoo jërëjëf bii benn rek la style bii loxo bi nii la mel. fa wuuteeg ñaqale bu ma sol nii xam naa si benn bu loxo mel mooy loxo yi ñuy ras noonu leen te séddoo rek jërë ngeen jëf soo bii tamit rob bu gudd la njooleexoo ko ba du la jot gis nga gis nga style bu mu rafetee ta sexy ta sexy boo ko solee ah ba ànd ak musóoram ko moom bii musóor rek laa am si soo beneen bu mel ni bu ma sol ni mu bu loxo yi bu weexam jërë ngeen jëf kii Macky laa bëgg a xam fooguma soo loxo bi ku ne lay am beautiful mooy yi bës leen te séddoo bi mooy comme bu ma soloon démb ndax xam ko ci démb mooy yi ma ñëwloo woon Dakar gis ngeen ko bii si yu xoyof yi la mooy yi ma ñëwloo woon Dakar beautiful and simple bii mooy yi nga xam ne fañ ànd sipp goo xam ku ne sipp gi xel mooy yooyu and xam naa borode yi tamit bii mooy na si boo ko solee lii mooy ne si gannaaw ok beautiful nga brodé bi benn rek la si couleur bi bay seen malaan ak musóor soo couleur bi laa si am ak beneen couleur ko grand bu buy xam na moo grand bu mbese yi nga ko bii grand bu mbese yi ak musóor dégg nga baat bi nu mu rafetee te set ok lii grand boubou la ak musóor ak malaan foog naa xam na malaan ak musóor baat bi round nii set séng ko bës leen te séngoo jërëgee jëf so bi tam ci ab am xaftaani góor la bokk sénga bulu bu bi couleur bi foog naa benn la si bu waaye xam naa couleur yi jigéen garaam bi bu mel nii boo xam ne bu la neexee nga jënd ko yàq sa jëkkër ngeen nuroo ok booy bi garaam bi bu neexee nga jënd ko yàq sa jëkkër ngeen nuroole ko sëñ baat baa ngi nii rafet ba set beautiful ba am malaan ak musoo bii tam ok la neexee nga jënd xaftaan bu la yéen ñaar soo yëree yee nekk noonu guys jos yëree yu bëri la mun ma ko wane yëpp you but yeah beneen yoon incha allah naa wane yeneen yu ma wane ut tey but yeah koo xam ne xam doom joo xam ne gule góor la ku ndaw maanaam waaye dafa njool maa si aadi muy wa dana soo ba tey xam naa yëre yoo xam ne dina ko xem yeneen yëre yu ma leen di won noonu pour góor gu selem daf dee xem maa si yi gune yi nga xam ne dañ njool so anything rek ok guys xama ñoo seen dafa xam yéen ñu bugg kii de xam kan moo sekk Hello. Hello. Ami. naam. waaw yow sa yére rafet na de. jërëjëf waay. borodi orange moom ñaata lay jaar. dana la ko wàññil xooma rek yëpp seeru. ah. waaw. ah waaw baax na. seerut waaw xaaju tamat sax téeméeri pound de. ah loolu nga wax de. waaw. am na mbalaan la coton bu rëy te rafet seen am na mbalaan ak musóor waaw te bii ah, waaw baax na xam bu mel nii malaanam ah, kon baax na naa la woo ah, mbalaan mel <laughs> ni ñoom ñëpp a malaan ak musóor borade yi yëpp a xam malaan ak musóor jërëjëf bës leen te séddoo thank you guys bës leen malaan gi ngeen di re <laughs> sër ngeen di wax malaan sër de ñun malaan lañ ko loolu fa jar la yéen a koy yëpp nit ñi ni ñuy waxee boobu dara jënd leen wala ngeen dimbale vidéo bi moo gën ngeen téeméeral foofu nit gumbo yu te rek xaw ma tax ñuy téléphone rek ne téewu téewaa la pare te du ngeen dimbale du ngeen def daal di reere jëndu leen seddoowu leen vidéo bi ngeen a xaw a sox dekon ah kenn néewu di leen saagandee ndax ku ñu leen di saagandee ngeen di bugg ah ndaw tëgg mu neex ay léeg-léeg la tëgg njëkk fa neex de jërë géej ja fa xam ñi doon bind na ngeen a bëggoon wala la waaw këpp yi it maa koy jaay kay so rek fàtte naa ko wone sax anything lu ngeen bëgg rek neli laa war na toogee fi boo fi kenn du la gis naaj neli lay ñëwee bu ngoonee mhm. këpp yi maa koy jaay yëpp gisal ko baa ngi nii billahi yéen soxal fi ne lu ngeen ma koy jaay jaay jërë ngeen jëf how much is what bagage yi bind leen ma dem leen si si Facebook yi Ami bi suma whatsapp mu ngi fa wala ngeen bind ma fii ma jox leen suma whatsapp wala ku bëgg a jël suma whatsapp léegi na ko jël ma jox ko ma waxal ko ko si xolof wala si hàngale mu bind ko su ma ko bindee TikTok du nangu wala yéen ko xam suma whatsapp na ko bind foofu TikTok su ma koy bind du nangu ngeen gis ko fa soxot de man moom live du nangoo bind ko TikTok ay Chinese yu soxot la dafay soxota soxota soxot ba xaytal mooy problème konoon kay suma live sama ci des moom ni gis naa nit ñi Sénégal surtout sëriñ yeeg nit ñi jaay xeesal ak yi dañ dee def live bi even mu ne seen téléphone si live ñeme mu maa defoon vidéo def suma téléphone TikTok bind ma làkk loolu yàgg na time bu may commencé TikTok xees lima waruma def laa ko bàyyi waxe allo hello hello hi sister naa hello ha hana ngale onan hana sa ha dégguma la waxatoo de allo hello waaw Ami can you hear me yes I'm hearing you hi how are you fine thank you how are you I'm good you're right did you have a different kind of wig can I see it I normally wear them in my videos, unless I can make a special video where I wear different ones and show you guys. I can make a new video, like a small one, tomorrow something. But I normally just wear them in my videos, and then my followers they will just order. Mm-hmm. I normally just model them myself, you know. Mm-hmm. oh you went away thank you so much bés leen te maa sonn sax te xiif de mooy problème bi xam nga si suba bu ma ñëwoon waxoon naa ne maa sonn te xiif si bëccëg ma lekk tuuti fruit ba pare ma lekk ñaari nen waaw ma doon bañ a lekk mburu suma yaram ma bëgg moo tax ba tey maa war a reer waaye dama dee bugg a teera a reer hmm. so xam naa ne may ñëw dem dagg vidéo bi léegi du yàgg dem teel a reer xaw ma nag lan laay lekk tey laa dem surtout sardeñ laay ma toog ndax suma toogee aadi moom fa dem moo xaritami fay lekkaale foofu ñu nga dem taawun faatu tamit mu nga dem jëm moo xaritam xawma lu muy lekk su ñëwee defar whatever moo koy yëg gaa yi xam nañ seen lekkantu yu gën a yooyu si fridge waaye man su ma toggee lekk african fi mu ne nii mooy ne may togg mbaxal wala dara te su ma yaram du parce que may def palaat bu rëy <laughs> moo ne nii li def mooy <laughs> may jël sardeñ lekk ko ak salade Mo pare waxa yeen duma muna waxa yeen telefon mooy layfe yes aminde yuke sardeñ ak salaat lay lekk wala sardeñ ak cere nga def cere ju xem xanaa lool. def ci kaaneeg yepp bam neex xanaa lool waay suma togge may togg loo lekk. te ngeen supp ma toggoon noon fan yële te filmoon ko noon ma ko lekkoon ñaari fan lekk si tey lekk si bi ko maa faatu rek ko lekkoon aari bëgg supp su ñaari fan may lekk maalo te suma yaram mu bëgg koo wàññi it's not good fi mu ne lekk ma maalo te bërki démb laa commencé lekk ma maalo ak démb te itam duma lekk maalo suba nag naa ko mën lekk wala gannaaw suba moom lay def man ngi wax naa yu it too much dégg may lekk lu bëri fay fen waaw du all the time yenn yi wut moom lu ci yoonam sax ak moom kan la fa làqu ci gannaaw di wax xaw ma Macky Sall la xaw ma jabari Macky Sall la xaw ma suma noon buñ jaale la xamee ngeen loolu ci lu kàkkat dee ka koram naa nga wuy wu neex te yàgg Macky Sall la segam xëj na ka dee ka koram sama nijaay nee ma doon bind yéen ñoom ay partenaires am bés leen te séddoo may ñëw dem si kanam tuuti bu juróomi waxtu jotee loolu bés leen te séddoo ko ngeen man ngay wax you beautiful now man kay ma yàgg a beautiful xanaa tey ma amee mu rek man mu yàgg a rafet mu ne moskaar ganaan ma you are beautiful now mais ne léegi laa rafet anyway bos leen te seddoo rek jërëgeen jëf allo 찔리고 쌉싸대 갖고 war daw de suukar mu ko yëgu leen seconde bi la foos wan bi la laa la ah ka xaw a wex de waaye bëgguma koo suukar de ah wàññi yaram de suukar nga koy wàññi de moo tax yaram yomb moo tax Macky Sall ak Adama seen yaram bi duy wàññeeku suukar lañ man tabax bës leen te seddoo jërë ngeen you started to sell ku la ne selem rek mooy rafet <laughs> si téléphone bi di xoj ni ñi lay xewal waaw nga sama xel mi ngi daj moo ma xel mi newul like yaa koy yëg bu yaa nekk dama xas naan ma xam nga guys ngeen xamee seen xarit yi bëgg a jënd wu bi julli ngeen boole ma ñëw ñu ñëw ko gars yi teelu tee jënd surtout buñ néew tàngal teer bii duñ ci jot bi léegi daf di am problème um, naa dem seet ko dañ ñëwoon si weer bi amee fukki fan ak juróom-ñett jëm kaw dafa tombé samedi muy démb te bërki dem demoon naa pause demut ndax ñu ne nekkuñ di pause soo subaa jàmm si loolu gis naa demaat maa ngi xam ñaari pause yi war a dem Amérique te dafa ruslu nit ñi fay ma seen xaalis ba pare du ñu mën a jot seen bagage not good for my business at all black one sis which one the black dress you mean You mean the black dress? The one for women or the one for men? Chin lu mu saf saf mais ñoo dem sax gaay kii de xaama kum dox ki bëgg a dugg ni ne góor la maa bañ jël leen ngir ñoo di wax mbiri Macky Sall wala di wax mbiri beneen vidéo moo doon def beneen bés bokkane ko xuteeg li may jaay nii loolu de bañ jërëgéen jëf thank you so ngi ah suukar de xam ko xaw yaram de neexul war nga woon suukar moos meloon daaw laa aka wéy bu yàgg daaw yaa man ngeen di rees mooy roy may wàññi ne you are very good ah thank you hello I'm good thank you down ma wàññi down ma wàññi down tudde nit maa koy jaare bu leen fàtte saabu itam des na waaye lu si des bëriwul so gaaw leen ku saabu xama na dina xamaat bagage fii ba balaa weeru ko but saabu yu ñuul yi may sango you know malib original saabu malib may undergoes, my undergoes. Gars du ma wax loolu ma xam loolu la fa nga naan. bu mel ni nga ne mën naa wax kaw ma lan gars du ma wax loolu ma xam loolu la fa def. su ma ko xamee sax yéen su ma xamul lu nga bëgg ma wax ko du wax. encore yenn nit ñi dañ buy yër te feebar ba ñu ñëw si ñi waxal lii waxal lii taxaw yow wax ko loo may wax loo rek ma warga bi fa weqaat taxaw suukar allo ok gars yi maa ngi ñëw dem dafay lëndëm si te damay dem xam ma kii kan la ma jël allo loo nekk yaa ngi ci rek. ma damay bëgg dugg sa laay waaye dugg ci moom day daal di jafe man dama bëgg rek. jërëjëf waay. waaw. yaa may dégg. fooy fooy fooy wootee man kees laa ok jërëjëf waay apprécié naa ko trop. jërëjëf waay. waaw loolu de la ñu am bépp yàlla tax. naa damay seetaan sa jërëjëf waay apprécié naa ko trop. dama war a ñëw yoo naa Mm, waaw baax na jël mm-hmm. sama numéro ci ñuy déggante sa numéro mm-hmm. loo soxla woon noonu soxla ma dara sax dama laa rek doon sa soppe di seetaan sa live mm-hmm. jërëjëf thank you so much appreciate suma fans yi nag yi bu ñeen ni dañ ma dee mere suma numéro la ñu soxla wala ñu jël ko di ma wala di ma vocal te du may mën a ne di xëyu nit ñi ñëpp ak a waxtaan ak nit ñi soo xëyoo nit ki mu nga waxaat mu waxaat nga waxaat mu waxaat foofu ngay xendu different nit fañ ma ciy mere ñeen yi fa ñu jël suma numéro Facebook ma ko fa def ngir may jaay te may jàngale xolof ak a jàngale soose léegi su fekkee ne nit ñi jël nañ sama numéro bindoo ma pare xëyuuma bala ma xëyu te duma mën a continuer di xëyu nit ñi fa ñuy mer naan ma sa fans laa de man duma mën a xëyu fans yi yëpp kenn ku ne ngay waxtaan ak moom ba jant so ma ko man tamal sama maa ngi war a def vidéo war a def leneen ak leneen seet leen ko ne ndax bu doon la da ngeen ko mooy problème bi su ko defee ngeen ne man maa bon maa bañ a wax ak yéen fa may jaaxal de xaw ma nu may de may jàpp si yàlla rek am ne yéen ñoo xam ngeen di mer di vocal di mer mooy problème waaye bu leen mere man duma ne di waxtaane yéen kenn ku ne ngay waxtaan ak moom kële wax kële wax nga xëyu nit ñi duma ko man mooy problème te man bu leen ma gis ni may vidéo miinu ma téléphone bu bëri waxtaan waxtaan ak lu bëri miinu ma ko hmm, waaye yéen ñëpp naa leen waaw yàlla leen yàlla defal jàmm yéen sama fans yëpp wa waaye koo xam nga mu xëyi xuma la bala mu xëyi la benn yoon ba koo xam ne bëgg nga suma numéro it dama sa fan la ma laa bëgg suma la ko joxut bu ma mere ñenn ñi ma leen koy jox ñu xam-xam ci problème mhm. surtout nit ñu ne Afrique ak yooyu di la ñaan xaalis te doo mën may ñëpp xaalis yow sa bopp yaa ngi jógee ci famille bu xamul mënoo leen a dimbale sax ñoom ñëpp fa naqadi daal mhm. te ñoom duñ ko xamee di la wax seeni problème doo xam looy wax loolu fay tax ma ragal di joxe sama numéro waaw jos nit ñi bëgg a waxtaan ak man ndik sama xolom yi fa leen neex waaye ne di xeen di waxtaan ak ñëpp jéggal leen ma waaw waaye jërë ngeen jëf am not am not sad <laughs> <laughs> maa gëmmentu amin maa lifin fi ne maa xëy ba pare maa sonn exercice be force suma yaram yi ba may waaja dee fi ne nii suma ndiggali fay métti suma gannaaw gi di métti suma xóom yi di métti te ñaari fan yëpp nelawuma bu baax ci guddi xam naa loolu ci la bokk waa exercice bi moo tax tey ñi moom maa exercice ak démb yëpp fa forox suma yaram wi de ma du ma ko ba su ma ko baxee suma yaram wi fàtte ko fi nekk suma yaram bi mooy sangu sax ma koy génne mu ngi wàññeeku may continuer jàpp si yàlla suba ak jàmm bu ma déewu su ma xëyee danaa exercise by force bu dee fay taw ma exercise yi néegi bu dee tawul ma dem sa biti def yi may def yëpp ndax exercice boo demee miin ko fa baax ba te sa yaram fay dem waaye pour nga miin ko mooy problème sa yaram fay forox surtout boo diisee moo life is very short nga naan take man maa ne duma koy take it man ku ma gën a take life easy xamul te ku ma gën a positive just because dama de wax nonsense si suñu askan wi moo tax ñu bëri foog ne nekkuma di jël live easy wala nangam mm-hmm. maa miin sama vidéo yi ma ñëw fi di wax dëgg nga xam gisuma askan bi di ko def te ma ne moo ñuy dimbale maa miin di wax loolu xadi yëpp but it's not live du ma jël live easy man suma exercise yi nga naan lan su ko bàyyee du baax moo koy def nga naan lan take live easy jigéen ñoo naa live te take it easy fañ tayal te bon jigéen ñoo duñ exercise nañ bañ a jóg exercise ñu naan la man exercise yi may def fay dara ñoo xanaa gisoo nit ñi li ñu la li may daan du dara su dee ba miin ko sax danaa def loo puloo incha allah man mu yembar mi nga naan tekki man may def dara du may def dara li may def si exercise is not enough at all moom laa la loo xamal loo gis may def ba nga naan take easy life is too short lu ma def ngay wax lu moom laa xam man maa la gën a xam ne life is is is too short man maa man dama dee jël life easy su ma nekkutoon di jël life easy maa ngi mel ni nit ñi gëmul seen bopp yi si internet di wanteer seen bopp ka saaga xante ndee everyday ka ñooñ ñoo jëlul life easy ñoo ñoo xamul ne life is too short waaye man xam naa ko de <laughs> man maa la gën a xam ne life is too moo tax faale wu ko but faale naa ko at the same time faale naa ko in a healthy way protect sama bopp ak di protect askan waaye faale wu ma ko comme nit ñi nit ñi xamul ne life is short ñoo ko faale wul boo tax mu jaral leen yenn meluma noonu <clears throat> su fekkee ne life is short ba tax ba doo def dara nga ne life is short rek nga bàyyi a ah, loolu xaru la life is short taxul ne yow yow nga bugg a dee léegi léegi xanaa ko bugg a dee léegi su dee ngaa bugg a gudd fan ngay exercise wala nga dox lekk lekk yu baax taraay tuuti doo wane life is short I don't care Why will I say thank you to you? done for telling not exercise? <laughs> You're weird. <laughs> Why thank you for that? Anyway, I'm going, guys. Handling jam. So, guys, Lola, it's my more for ci exercise bi loolu mooy gi noonu but incha allah su ma yaram ko miin du ko bàyyi de suba jàmm suma xëye taba no you don't have to sorry it's not like you offend me like that I'm just trying to I feel like maybe you don't know it's like you think I'm doing too much I'm not doing too much I need to exercise more what I'm doing is not a at all it's just my body's not used to it do you I mean I'm not gonna go out there do like 50 jump rope fifty whatever, whatever, twenty whatever, and that's it. No. I'm not overdoing it. I normally stop when I'm tired. I normally do like one hour. And I don't even do much. Do you not see how people work out? That's nothing. I don't even know why you're saying like as if I do like run marathon or something. As if you see me doing too much. I don't even work out at all. I'm always crying when I'm working out. just tired and just can't even do <clears throat> I don't even know. Anyway, you're hiding behind the camera. No one knows who you are. You don't even show yourself. I don't think so. Do you have your picture there? I doubt it. You're one of those people that hiding, talking, and you can't even see them. That's weird. anyway anyway i'm not going say thank you to you because you don't say anything that what thank you what yeah whatever <laughs> i have to go guys <laughs> you know me i'm hungry when i'm hungry i'm just like so grumpy <laughs> i have to go guys and make my dinner bye guys have a good evening maa ngi bay bye xendu leen jàmm guys so ku bëgg yëre rek na ma bind ok guys so maa ngi tam beautiful yëre yi you know different style different size everything ku bëgg tam buy basaab tenkili ba mbor mbor um, fuddan am naa sax ay kurus anything ok so nekku ne jos lii lay jaay biti kola sax xam naa ko everything biti kola mhm. so anything lu ngeen bugg rek ngeen waxal ma incha allah beneen yoon ngeen xendu jàmm jërë ngeen jëf ba beneen jaay video incha allah bye